si ci yéenekaay yi li ñu xëy ak Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf yu ko ku mu tax a yokk booy toqi di gàtt candidat yi woon ca concours recrutement élève maître tappale ngiut njaaj yi leen Serigne Mbaye Thiam doon jiñ neexute wet yi firnde laa ngi ci l'observateur lépp nee fa fang journal bi dafa xëy yam ci rapport de vérification concours recrutement élève maître ci centre régionaux yi ci mbirum formation personnelle ak éducation rapport boobee l'observateur xëy na ko becc keroog àjjuma ñaar 2554 yi composé ñoom ñoo ci at mi waaye ca ñooñee am na ci yoo xam ne ci ay furóot la jàll dogal bi mu njëkkoon a jël ci yooyu la jamono moom Serigne Mbaye Thiam moo di neenal seenu at mi boole ci ñaar ñu ko jege woon lool muy chef de cabinet ba ak attaché de cabinet ba Serigne Mbaye Thiam boole leen ñoom ñaar ñëpp dàq élève maître yi di ko ñaawlu fu ne ñu dem fa toog di jéebaane doxalinu Serigne Mbaye Thiam boobee ba yegg Cour suprême ba ñu yeggee suprême bi li mu leen wax moo di gouvernement bu Sénégal munta sori ci dogalu cour suprême li ma xam ba xam ko daal moo di ñoo ngi def suñu xemtalaay kàttan gisaguma nag dogalu cour suprême bi ba xam la ca nekk waaye xam leen nguurug Sénégal du toog mukk di seetaan ay fraudekat ñuy dugg ci njàngaleem l'observateur tax nañu juróomi mbir ngi yoo xam ne ña ci rapport ba te dafay jox Serigne Mbaye Thiam dëgg benn moo di candidat yaak seeni dossier test yaak na ko reporté lépp l'observateur xëy na yi nee nañu li am ba des daal moo di xaaratuñu ministre déglutuñu kenn cour suprême wax na ca jox na leen dëgg dem forcé dugg ci classe yi la def grand place nañu njàngaleem ren mi ci boppam moo nar a suuf ci réew mi ku yóbbu séentu ay téeméeri grève une année sans grève Mamadou Lamine Diante bu grand cadre moo fa yëgloo ci xët mu njëkk journal bi Diante nañu fa amul benn misir boo xam ne jël nañu ko ngir du gunge wàllu formation diplômante syndicat jàngalekat yi ci réew mi mu ne ñu bari ay syndicat am leneen coow lu bëgg a jollete ci wàllu justice heure supplémentaire yi ñu bëgg a dindi ci wàllu justice yéen a kaay bi dañu moo waral site juste di syndicat gi jaboote ñiy liggéey ci wàllu justice ne duñu ko dégg bañuñu ci dara raag ba raam waaye heure supplémentaire yi moom du dañ laas nañu seen xeex bi nag ni ñu ko bëgg a moo di takk ay sagar yu xonq bu ñu ci jógee tegaat beneen jéego ci sooxe liggéey justice bi ci la ñu jëm ñu dem ñun ci la soleil mi demoon fekkee ji daje bi gendarmerie Afrique yi doon amal ci ñu démb la woon ci teewaayu maître Augustin Tine mi ministre forces armées ak ki doxaleen ngir xeex wàllu terrorisme ak cybercriminalité moo taxoon a jóg moom i leen dajee Walf Fadjri ne ko sustuma xeex googee ñuy xeex wàllu terrorisme koppar yi ci war a dem fi ko nguur gi bëgg a jële moo di dindi avantage yi mu joxoon fonctionnaire yi ci réew mi lu ci mel ne wàllu heure supplémentaire yi ñu dindi ko xaalis ba ca waroon a dem ñu dugal ko ci xeex terrorisme président Macky Sall mi jiitu ci xeex bi ñuy xeex wàllu terrorisme dellu na la ca la tribune moo ñu ko xamal journal bi ne xeetu muraay yooyu di voile intégral tere wuñu ko ci réew mi Serigne Mansour Niass premier serviteur bu parti bii di RP rassemblement du peuple ne ñu xam ne mi ngi fépp ko war a xeex bu baax a baax bañ cee toqi bañ cee a kaay bi di la turbine ne ñu moom Serigne Mansour Niass ca wàllu la yëkkatee yooyu la ci tournée bu mu fa doon def jëm ci dajale militant yu parti bii di RP Serigne Mansour Niass dem sax bay joxe ay pexe ki xalaat yu ñu war a jaar ngir xeex wàllu terrorisme Ibrahima Badiane coordonnateur u Benno Siggil Sénégal xëy na yàkk waa bokk yaakaar lu dara jarul moom la waa populaire xëy dalal mu ñu ci liggéey ak ci taq gi war a am ci terrain bi ñu ci wax bennoo bokk yaakaar te it bu askanu Sénégal gisul seen bopp ci li Macky Sall di liggéey ak ni muy def Ibrahima Badiane nañu bu boobaa falaat Macky Sall du yomb meneen Ibrahima di Ibrahima Silla ci enquête ne kaay ne ko kon booy boo ngeen wàcc ne Sall mi ma gis ci yoonu folleku la aw Ibrahima Silla mi wax loolee enseignant chercheur la ci université Gaston Berger bu Saint-Louis nee na waa enquête ñu bëri ci askanu Sénégal gisuñu seen bopp ci waxi Macky Sall muy discours ba ak dox doxalinam moom Macky Sall bu dee mi ngi doxal réew mi it na ko leer na mook réew mi ñooy dox bàyyi fi nit ñi Ibrahima Silla nañu bu doon ay réalisation ki réalisation kese maanaam ay tale ki taax kon duñu folle Abdoulaye Wade moom Wade moomee sax waa këram ñoo nekk ci le quotidien mu di waa parti démocratique Sénégal journal bi ñu Modou Diagne Fada ak Fadaman yi mu yóbbaale woon ba mu fàqe ñu naan leen ay réformateur seen congrès bi ñuy waajal waa parti démocratique tere nelaw amateur yu bëri mu di revanche su triple S doomi Double Less di Balla Gaye 2 ak Modou xarañ Lo combat boobee léegi tey mu sotti l'observateur nañu lig Nicolas mi ko bëgg tëgg ba tax mu koy dox sori na ca ndax démb jébbal na ab chèque kii di Double Less bàyyi triple S di a Gaye ak Basirou Babou mi mënaat sër bu Modou Lo ñu des ci l'observateur mi xëy ak ñun ci xew-xewu jamono bu doy waar ma nga xewee ca kaso bu Louga benn waay bu ñu naan Amadou Sadaka ñu ngi ko tëjoon kaso ci atum ndax nee nañu dafa bu jigéen bu naan Rugi Ba moom Amadou Sadaka nekk bi kenn waxul ci moom nekkinam foofee metti ko mu bëgg wax ci moom journal bi nañu ni mu def moo di keroog dimanche bi gars yi ba war a dugg dafa duggaale ab lañ set bagaasam ya di awree la ne tëppét ba ñu tàqale ko gars yi yóbbu urgence l'observateur tax nañu waaye ba ñu ko bëggee ñawalaat bagaas yi dañoo xool xool gisuñu ko leneen loolu it am na ca lu doy waar ba l'observateur xëy ñu ko yeggee moo di Amadou Sadaka mi dagg ay bagaasam nee nañu ba ba mu ko ba noppit noonee la ko def paaka la jël dagg ween wa dagg awra ya yéen a bi nañu juróom-ñaari at ginnaaw bi Amadou Sadaka loolee dagg na awray boppam ngërëm ko Mamadou Mouhamed Ndiaye jaajëfal leen yéen ñu ñu àndaloon benn waxtu ba léegi ci xibaaru digg bëccëg bi rédaction bi incha allah dana dellu si 19h30 ak 20h ci yeneen i xibaar waaye seen programme dafay wéy ci télévision Futur Média biir permanence foofee la ñu koy faram-fàccee keps taxaw na indi kayit yi ngir xamal leen naka ngeen fas yéene yendoo keps ma lay nuyu. ma lay fay soxna Ngone noir et blanc bi rafet na mm. euh, la ko. <laughs> jël naa. Euh, maa ni ko ngénte si ak laadum ak yooyu. waaw yi nga ci diggee woon ci tabaski ji de. <laughs> ah ngoone ay waxi euh, diggee moom defe naa jeex ah, yaa ko fi diggee woon ba tey daal maa ngi xaar xar mi tabaski déwén nañ fi suñ borom bàyyi xëy na boobaa dañ ko indi. incha allah gërëm ko képp si càmm biir euh, permanence mooy ñëw léegi léegi ñu leen di ñaanal ngeen yendu jàmm ak programme télévision Futurs média